asalaamaaleykum wa rahmatulah Mbacke Mbacke man a waaw di maa ngi siyaare bu baax Mbacke bala alhamdulilah Mbacke tey tey tey tey sant suñu Tuubaa baax ci jotaay bi Mbacke sama waajur na dana moon naa la nuyu Mariétou Touré na mu ngi lay nuyu bu baax dañ fay daje nag booloo doon benn ku fële ca France di fa liggéeyal suñu Tuubaa waaw man kay Mbacke alhamdulilahi rabil alamin Mbakke ba ba ba ñu fa dajee nag mbooloo mépp maaseendoo ànd dugg ci sa jiba ngir nga toppe Sëñ Tuubaa ñu toppe la ko ngir liggéey bu mag bi nga xamante ne bëgg nañ koo taxawal fële ca Paris te Turquie yi marocains yi tunisiens yi ñëpp am fa ay complexe yoo xamante ne ni fa la ñuy daje di dund seen diine ñun biñ demee ba gis ni lii war nañ ko faa am ñu dajale sunu doole dajale sunu man-man dajale sunu kattan ngir bëgg faa defaral Cheikhul Khadim ab complexe bo xamantene mo nek nele seigne Abdou Aziz Gueye yor mu tuddu complexe international Khadim Rasoul complexe bi nak Mbacké lepp lo xamanteni ni day tax sunu sunu sunu taalibe ñoŋ danañ ko fa def muy ab saal bu ñuy mëna a di dund suñu Tuubaa école bo xamanteni dañ fay mëna a sunu ak bibliothèque bo xamanteni ni dañ fay mool suñu yi yi diko fa tassaré ndax li nga xamanteni mom nga bëgg lool muy jang ak fa la ñu di Paris bari na samay morom yoo xamante ni tey busen bu seen di julli ñom dañuy julé fé ndax dañ nan doyulen, gi doyu len ndax dañoo and ak ñu ñu war ta àndal biñ ba gis lool nak xamni li ram ci ñak jëm ñu daal di yëkëti li ngir dafalal la dafal defal ko seigne touba mbacké tay yalwaan seigne touba mbacké mi nga xam lepp moko mëna def mbacké nga dimbali ñu ci ñaanal ñu ci ba am ci lu kawé suñu njort lepp nak buñ ko xayma ci alal egg na ci tollu ci 4 milliards ci suñu xaaliss waaye loolu lépp liñ ci bëgg rek mooy nga ne nu jërë ngeen jëf yàlla na ko suñ tubaab mottali liñ ci ñaan rek mbàkke loolu kese la nga dégg ko rek moo ne won suñu kàddu te di la ñaanal bu baax Serigne Touba Mbàkke mi nga xam lépp moo ko mën a def yàlla nga am ndam lu kenn mësta am buñ demee yomal xiyaamatil akbar bu yonent bi di tagg suñ Touba bu ñuy tagg ñi fi nekkal suñ Touba buñ la woowee suñ Touba daan rek bu nga xamul mooy sëñ Muntaxa moo ma taxawaloon université bii complexe ba la nekk ca Paris it moo ci ayam la la la nekkee lii moo ne woon suñuy kàddu maa ngi jégalu bu baax tey ñaan lépp a ngi nii maquette baa ngi nii nii la war a mel lépp nii la war a mel. mi ngi ne ci kii ba xoolal dafa woon lépp. mu ne loolu daal moom na seen xel dal bu baax a baax. mu ne fii ñu toll. mu ne ci xamle sëriñ bi rek lañ toll. te loolu moo ci li ci jiitu. mu ne kon na seen xel dal bax baax mu ne na ngeen xamne seigne mo nek seen kanam moo leen wommatal seen bop mu ne kon góorgóorlu leen ba gën a takku gën selal sellal mu ne noonu rek la deme waye na seen xel dal bax baax mu ne moom ci bopam mu ne xalaat ju reele ci mom ju sori ci mom la bu sedd xolam la xalaat ju am yaakaar la ci mom mune kon gor gor len rek mune Serigne Touba moy sen womat mune yow khadim xamna na say waajur baax soxna Marietou ba gone la xamone serigne sëñ bam it rek la xamone taxawayam kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamé ni mune yow mii di xaadim si sëñ di njabootu soxna Mariette ak sëñ Mor Sylla ñu ngi lay sant yàlla baax a baax di la sant di la gërëm mu ne góor bu baax a baax liggéey baa ngoog rek mu ne nañ gën a feddali suñu laxasaay te gën a góorgóorlu rek mu ne te sëñ Tuubaa moo nekk suñu kanam mu ne fàggul nañu lépp lu mat a fàggu rek fàggu na ko lu mat ñaan boromam ñaan na ko te borom nangul na ko ñun nag noo fi nekkal mu ne dañoo am tawfeex rek mu ne sëñ bi noppi na ci lépp jërë ngeen jëf seen mbokkum taalibe Modou Fall Kébé euh, jëwriñ ci euh, Aulnay France Paris xol yi dafa tooy ba nga xamante ni bi na xaj na li ñuy war a wax yëpp sax maanaam dañuy euh, day xaw a jafe ña wax waaye li nga xamante ni bi na moom la ñu fi ñu li ñuy tàmbalee rek mooy taxaw bi nga xamante ni bi na wax dëgg yàlla équipe équipe bi yëpp taxawu nañ ñu ko laataa ñuy ñëw waaye ñuy sant itam ki nga xamante ni ne mooy suñu jëwriñ itam ci maanaam diaspora bi muy Serigne Mame Mor Mbacke taxaw bi mu ci taxawu nga xam ne fan yii yëpp euh, mi ngi noppiwul di ñu téléphoné itam boole ñoo rakkam muy Serigne Abdoulahat mi nga xamante ni bi na moom itam démb sax la mujj fanaansi ngir bëgg lépp jàppandiku ndax jàpp na ne xaj na bu ñëwee tey mën naa tardé wala dara mu fanaan si bi jiitu si ñun loolu nag nekk itam loo xamante ni bi ne rëy la ci ñun kon fi ñu toll mbooloo mi fu nekk la ñu jógee ñii ngi jógee Dakar ñii jógee Mbour ñii jógee eh, ba mbir kilaan sëñ Fallou mi nga xamante Fall moom tam ak ñëpp moom mëneesu lim ñëpp waaye buñ ci tuddee kenn wala ñaar rek mu yóbbaale ñëpp waaye tey moom Eh, wax dëgg yàlla bi ñu gisee sëriñ bi ak kàddu yi nga xamante ne bi na moom la génne yàlla suñu borom moo xam naa ne moo ñu dimbali waaye maanaam kaddu yi dégg ko sax di taxaw moom nekkut loo xamante ne bi lu yomb la waaye xëy na ci ndimbalul suñu borom ak sëriñ Tuubaa bi nga xamante ne bi ne moo tax ñuy liggéey xëy na moo tax yàlla dimbali ñu ba ñu mën a maanaam déggu kaddu yi dañoo gis ni ñun ay taalibé sëriñ Tuubaa la ñu te xam nañ ne sëriñ Tuubaa moom ba mu amee ndam ci tubaab yi yàgg na wax na ko bind na ko loolu itam feeñ na waaye nag dafa am loo xamante ne tey jii ñun taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew ñun ñoo ko mën a maanaam firndeel ñoo ko mën a confirmer rawatina nag lu demee ne France nga xam ni jafe yi mu amoon xat yi mu amoon ci àddinaam nga xamante ne bi ne giirug dundam yëpp mi ngi nekkoon maanaam ci euh, ci ci loxoy tubaab yi amul woon benn liberté kon bu demee ba am ci ñoom ndam am na loo xamante bi ne tey jii ñun ñoo ko war a mën a wone moo tax ñu bëgg def na complexe boobu nga xamante ni bi nag complexe international Xaadimu Rasuul lañ ko tuddee nga xamante ni bi nag lépp mooy nekk ci biir amul dara loo xamante ni bi nag ci kàttanu suñu borom ni maanaam dinañ ne lu ci manqué la wala dara ndax complexe la boo xamante ni bi nag dina am jumaa ju mag ci biir dina am ay salle de conférence dina am ay salles yoo xamante ni bi nag événement yi nga xamante ni dañ ko daan def dem di louer ay salles muy màggal yi ak gàmmo yi di ko louer ci yeneen i musulman yoo xamante ni bi nag wala ñoo xam ne sax duñu ay jullit tey jii bu ñu yàlla dimbalee ba lii maanaam tey am bu boobaa ñun maanaam loolu daf ñuy wàcc te dina tax ñu gën a mën a liggéey sëriñ bi ndax lii ñu daan fay ci xaalis maanaam bari na. projet bi nag maanaam euh, pour ma tënk foofu rek xaj na euh, ñu kii première maanaam li ñu njëkk a xayma 4 milliards 4 euh, 4 millions d'euros la ñu njëkk xayma. waaw waaye gis nañ ni sax loolu sax maanaam dina doublé wu wala dina triplé wu waaw kon foofu lañ ci kii waaw waaw euh, projet bi Paris lañ koy def incha allah waaw fa lañ koy def waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi tudd Khadim Sylla bokk ci ndongo yi nekkee jóge euh, fële ca France rawatina Paris doon ànd ak sama kilifa yi doon waxtaanee liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xamante ne moom lañ bëgg a taxawal fële ca Paris. daanaka loolu mooy nuyoo bi li nga xamante ne nag moom la sunu kilifa gi wax di sëñ Modou Fall Kébé nga xamante ne moo jiite mbooleem murid di nekk France yëpp. war rawatina boog mbooleem murit nekk Île-de-France yëpp ak sunu jëwriñ bii di sëñ Abdou Aziz Guèye nga xam moo jiite 18 safara ak sëñ Pape Sène mi nga xam ne moom lañu àndal ak mbooleem kilifa ñu àndal yëpp di sant bu baax nag sëriñ Abdou xam Mbacké mii di doomi sëñ Mourtada moom Xaadimal Moustapha sëriñ bi wax nañu léegi ci biir ne mu ngi ñuy santale mu ngi koy santale suñ Tuubaa te jotaay bii bu amee tey gannaaw yàlla ak yonte sëñ Mamor moom mii moo nu ko yombalal tey ndax jotaay jomb nañu ñu taxaw ak sëriñ bi wax lii nu wax tey ba mu wax ci kàddu yi mu ci wax li man nag li may def mooy damay woote benn appel bu solennel képp koo xamante ne yaa ngi dégg sama kàddu yi loolee sëriñ bi waxoon léegi te sëñ Modou Fall Kébé mi wax ko jot na sëkk sëru rabal yooyu nga xam sëñ bi bu waxtu yu jotee mu lemmi ko jot na sëkk ca France sëriñ bi lemmi na sëru rabal boo xamante ne nii mooy firndeel ndam lu rëy li mu am ci tubaab yi am nañ fa ay kër sëñ Tuubaa naam am nañ fa ay daara naam am nañ fa ay kuréel itamit naam noo ngi jàng xasida bu noo ngi joxe addiya ñoo ngi ñëw màggal si waaye li nga xamante ne moom la sëriñ bi waxoon ne leen lii ngeen ma tere fii sama dëkk bii baax na du ma ko def sax damay ñëw ba fa ma ngi fa ngeen nekk ma defe ko foofu mooy looloo gën a tee maanaam dañ ko koo tere fii mu duma leen fii ba noppi dem fee nga xamante ne nag foofu nga xamante ne nii lislaam lañuy bañ a dégg mu ne danaa fa ñëw def fa loo xamante ne nii yéen ñëpp da ngeen xam ni am naa ci yéen ndam loo xamante ni kenn du ko naatable maanaam du ndam loo xamante ni baatin la ndam saayir la ñuy wax sëñ bi da leen a ci ay kayit gañe leen ci pas-pas gañe leen ci ay lépp ndax murit ya fa nekk tey jii nii balaa yàgg tuuti amuñu sikki sàkkane di ngeen dégg président la république français boo xamante ni ab murit lay doon ndax kayit lañ yor moom la ñu yor lépp luñ fay def mën nañ ko faa def kon ñoo ngi soññee murit yi complexe boobu nag ñuy def moom la ko sëñ Modou Fall Kébé wax léegi nii mooy complexe international lañ wax xaadimu rasul complexe international xaadim rasul nag Paris moomu ko France moomu ko Europe moomuñu ko àdduna wërngal képp a ko moom waxuma la ab murit ay julit ñëpp ko bokk ndax bu dul woon ak Cheikh Ahmadul Khadim l'islam du egsi fii mu egsi te loolu mooy dëgg loolee nag ñoo ngi woo ñi am xam-xam ñoo ngi woo ñi am alal ñoo ngi woo ñi am kattan te mën a ñëw ñoo ngi woo ñi nga xamante ne nii buñ ko déggee dañ naan ëskay ñoo ngi woo ñi nga xamante ne nii bu buñ ko déggee seen xol dina tooy amul kenn koo xamante ni yaa ngi dégg suñu karte woowuñu la sëñ Tuubaa waxul ku ma gëm da ngay dem àjjana dana ku ma bëgg la wax ku dul jullit mën na koo bëgg kon ku ko bëgg da ngay dem àjjana kon ñoo ngi woo ci projet bi képp ku bëgg sëñ Tuubaa ci loolu ngir ndam lii nga xamante ne sëñ Tuubaa wan na ko france yi ñun ñii nga xamante ne ñooy dernière génération bi ñu mën koo firndeel bu wér a wér te lool la ñuy yalwaan yàlla nañu sëñ Tuubaa defal kattan nii ñu ko sëñ Muntaxa waxee nee nañu sëñ Tuubaa ngi seen kanam te nee seen xel dal ndax moo koy mottalil boppam loolu doy maa ngi tudd Abdou Aziz Guèye ah, donc ah, bokk si bi ñëwoon seet si ku baax ki di rafetlu nag wax dëgg yàlla kàddu yu ñu jëlee ci sëñ bi ak it di sant bu baax a baax ñu ñu ko waxee ndaxte gën na dalal suñu xel ni projet bi lu sotti la ba noppi. projet bi nag daa am dimension boo xamante ni international la ah, boo xamante ni tamit dafa am symbole bu rëy rëy pour niveau yu bëri bëri symbole bi dafa daf daf ko matale boo xoolee lu mel ni culture mouride ak ñàngaleem suñ Tuubaa projet bi dafa revêtir benn symbole bu rëy ci loolu boo xoolee tamit diggante Sénégal ak France tamit projet bi tamit dafa am symbole bu rëy rëy bu muy bu muy bu muy bu muy bu muy bu muy bu muy wone loo xamante ni day wone taarix bi nga xam ne dafa yàgg lool diggante français yi ak ak ak Sénégal ak i taarix boo xamante ni dafa yàgg lool diggante français yi ak Sëñ Tuubaa moo tax ko ñu xam ne rek projet la boo xam ne projet bu international la koo xamante ni koo mën a jël rek mën na ci gis boppam boo jëlee murid yi dinañ ci gis seen bopp boo jëlee julli ñi tamit dinañ ci gis seen bopp lu tax julli ñi dinañ ci gis seen bopp moo ne ñàngaleem Sëriñ Tuubaa dafa tegu ci alxuraan ak sunna bu wér boo xamante ni France dañ ko fa soxla ndaxte jamono yi ñu nekk France gouvernement France dafa ragal lool li ñuy wooy islam radical te boo jëlee projet bii nag ci ñàngaleem Sëriñ Tuubaa la tegu te ñàngaleem Sëriñ Tuubaa xam nañ ni jaamu yàlla la ak liggéey loolu nag lépp luy islam radical taxu ko kon projet bi jàpp naa ni sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp africains yi tamit dinañ ci gis seen bopp ndaxte africains yu bari ñu nekk fële sëñ Touba bokk na ci seen i idole ba tax na kon lu mel ni buñ ko fa jëmmalee sëñ Touba yeneen nationalité yi muy ivoiriens yi gabonais yi ñëpp dinañ ci gis seen bopp français yi tamit dinañ ci seen bopp ndaxte l'islam bi sëriñ Touba di prôné l'islam bi sëriñ Touba di jàngale l'islam la boo xamante ne dëppoog naag dëkk boobu dëkk boobu ñu nekk France l'islam sëriñ Touba bi dëppoo naag ñoom ndaxte l'islam la boo xamante ne da ngay tàmbali ci defar sa bopp ba noppi dooray jéemal lijjanti sikk jaamur yi te sëñ Tuubaa loolu la jàngale nit ku nekk day xool sikk boppam lijjanti wëlis muy dem di lijjanti sikku jàmbur kon nag muy projet boo xam ne wax dëgg yàlla nation yëpp dinañ ci seen bopp France yëpp dinañ ci seen bopp kon ñoo ngi ci profito di ci woowaale ñëpp di ci woowaale tamit état français di ci woowaale tamit corps diplomatique gu Sénégal ak corps diplomatique gu fu nu mën a nekk mu ne te sëñ Tuubaa moo nekk suñ kanam mu ne fàggul a fàggu rek a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 daaru Darou Bayrefal TV, la première scène qui valorise la vie et l'œuvre de Mamsier Ibrahim Fall.